Paul Kaye moom defe naa mu ci staff bi la bokk Amadou Anta staff ñu ngi ah. wala ci staff ñu ngi production la bokk. parce que xëy na staff bi bu ñu sañoon ñëpp jox kàddu ñu wax mais maanaam moom mooy wax ci turu staff bi Paul est ce que boo toogee noonu gars yi mën a jël est ce que doo toog kii toogoon voilà bi noonu voilà. kii mooy Paul Maurice moom mooy wax ci kàddu waa ñu ngi production mooy nuyu ñoom fay a ah, ñoom Omar Saliou ñoom Modou Anta Jili Laay Laay Seen gars yëpp daal maa ngi leen di nuyu ñu ngi production yëpp. waaw di nuyu tamit Bachir maa ngi koy bëgg bu baax a baax borom wasaare ak suma waa ji ñoom ñëpp maa ngi leen di bëgg Thier bu Kewel Info maa ngi koy nuyu di nuyu patron Fallou Ndiaye. waaw salaamaaleykum wa ñoo ngi leen di di nuyu waa làmb gépp di nuyu waa ñi ngi production bi di nuyu aussi mbër yi nga xam ne ñoo fi teew di champion tey waral tey bis bi waaw euh, li may wax nag moom di ko wax maa ngi koy wax ci kàddu gu ñi ngi production ak staff bi nga xam ne moom la nekkal di liggéey vraiment ñu leen di sant di leen gërëm lu mel ne Alaaji Sëriñ Fay mu baax moomu ak ki nga xam ne moo di Kaana ak euh, Omar Saliou ñoom ñëpp Modou Anta ak Baye Jili Tarkinda ak Grand Laay ñoom ñëpp daal ku lim vraiment da ngay juum duñ def lu dul li leen sant parce que làmb yi euh, combat yi metti woon ndax ku xool li nga xam ne moom la ñu ngi production taxawal ak yeneen yi nga xam ne moom la dox suuf xam ne ñoom it gàcce ngaalaam ndax vraiment làmb lii rek mooy sport sport dangay fexe ba boo tegee li ngay teg mu intéressé nit ñi muy combat yoo xam ne nit ñi dañ ciy bàyyi seen xel kon ñu ngi moom itam ñu ngi koy sant baax di ko gërëm euh, li nga xam ne nag moom lañuy ñuy soññee di ko wax mbëri mooy euh, waaye comme ni ñu ko doxi nii rek bépp mbër boo xam ne bii ne jox nañ la contrat nga respecté ko nun loolu la ñuy doxee ah, mobilisation bi aussi ñu ciy sonnee ndax mbër ak promoteur ñoo bokk ndey ñoo bokk baay mais ki yëkkati xaalisam aussi di la tëgg dafa bëgg tamit bu la tëggee tey tëggaat la suba kon donc ngeen góor lu ci côté boobu vraiment aussi tamit di lancer benn appel sunu papa sunu président muy Macky Sall euh, xale bi nga xam ne yi daal di ñu ngi na ko jàppale parce que tey jii euh, mbër bi nga xam ne mooy Ronaldinho di champion ñu ngi koy nuyu wax na lu doy waar te pourtant moom rek moo wax de am na ñeneen ñoo xam ne ñun biñ leen di dox biñ leen di dox ñu ngi taxaw ci tànki temm temm temm pour dugg ci gaal gi lu leer laa lay wax mbër yoo xam ne lu mu dee dee mat nañ fee ñoo xam ne pare woon na doon ay doomi lébu pare pare pour dugg ci ndox mi kon ñooñu tey buy daal di ñu ngi sooyee leen vraiment indi leen jox leen métier kooku président lay dimbali kon président na gestu xale bi di daal di ñu di ñaareel ba aussi tamit euh, production bi vraiment dañ leen di sant ndax taxawal nañ yeneen combat yoo xam ne bii ne wax baaxul gars yi dañ ni kun xam foo jëm doo yegg yeneen combat yoo xam ne bis bu ñëwee danañ xam ne yegg si nan xam nga dab daan ak mbayteen mi rek doy na combat champion bu mag bi di koña moom di ko siyaar bu baax ak Ronaldinho nga ñëw ci galan bi ak yeneen yoo xam ne bii ne leer na ma leen soixante personnes yoo xam ne jox na leen avance pour paree leen kon staff bi vraiment ñoom it gàcce ngalaama sonn nan guddil nan nu bëccëgal nan du def du leen di sant di leen gërëm vraiment comme guddi na ñoo ngi jéggalu di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah